Boy Niang moo ngi moo ngi mu lu ruusi Tapha Leer ah Tapha nii ak ñun ñaari mbëri te ngeen jege sax di ñoo ngi demante baaraam ñoom déwénatu leen sax demante baaraam combat baa waaj jeex combat baa waaj jeex eh. ñaari mbëri ngi jàppante ñu ngi bëre arbitre bu sol costume nee na Dia Sy Ely gisu la sax ñaari <laughs> mbëree ngay bëree ku nekk ngi xalaat la dëggeen ñëwaat na <laughs> noonu seen gox la dëggeen Gueye Bébé Bassé Boy Niang numéro 2 la gis woon tey nag Boy Seye la gis Lac de Guiers bi kan war a bëre Ama Baldé wala kan dee si ñëw aaye comme baabam te du ko président bañ na demul waaw waaw fayu na moom tamit daan na ko lee Télé jubilé Tapha Télé jubilé eh, Télé supporter nañ teg supporter Boy Niang dëy nañ teg eh, xoolal ma supporter waaw tax sa max gi di raggi teg teg teg